une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay téere bu mel nii dañ ko aajowoo aajowoo nañ ko ci sëñ Muxtaar Bintaloo waaye aajowoo nañ ko itam ci ñi nga xam ne àndoon nañ ak sëñ bi ñëpp ñëpp ndax ku ci ne sëñ bi da koo defaroon ngir muy defarewaat moom itam kon ku ci nekk ku ci nekk royukaay la nit nag ba lañ koo mën a roy dañ koy xam kon ku ci nekk war nañoo gëstu mbiram ba xam ko nam wére ngir man koo roy moo ci jiitu ñaareel bi it ñoom ñoo ñëpp itam dañoo am luñ luñ andil lislaam dañoo am luñ andil lislaam mooy ndonol lislaam li dafa am lu ñu ci yokk jaadu na itam ñu xam ñoom ñëpp ku ci ne lan la indi lislaam euh, ban taxawaay la am ci biir lislaam loolu jaadu na ñetteel bi it ñoom ñoo ñu nga xam ne sëñ bee leen defar xam leen ci xam sëñ bi la bokk itam ndax ci liggéeyub sëñ bi lañ bokk kon bala noo xam dëgg-dëgg liggéeyub sëñ bi dañuy xam ñooñu mu yooyu yëpp tax na ba di bind ci ñu mel ne sëñ Muxtaar Binta Lo doon loo xam ne day aajo day aajo day yitte day luñ soxla loolu kon dana wone solo su téere bi am ndax day aajo joo xam ne am nañ ko ci xam ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi sëñ bi àndaloon leneen luy wone solo su it nag mooy rafet gu mu rafet ci buñ ko mënoon waxee waxin dañ naan ci saayir ak ci baatin ci saayir mooy ci niñ ko toftalee rek niñ ko liggéeyee ba ko koy xool niñ koy gisee rek baatin nag mooy la ca nekk dëgg-dëgg sëñ Abdul Ahad lim leeral lépp loolu lay wone li maye loolu bokk na ci niñ ci boolee ñi ci man dara ñëpp biñ koy liggéey dañ cee boole ñi ci man dara ñëpp tàmbale ko ci njaboot gi taxawal kuréel boo xam ne mbooloo ñoo ko bokk loolu bokk na ci li leen may téer bi àgg fii mu àgg bi mbooloo mi mbooloo mépp biñ ci bokkee itam ñu jaar ko nag fi ñu war a jaar liggéeyu xam-xam te ni ko sëñ Abdul Ahad teqantalee léegi la tàmbalee ca dajale gaag ak segg gaag ba àgg ca topp ga ak toppaat ga yooyu yëpp mooy rek dañ ko jaarale ci yoon wi nga xam ne ci lañu war a jaarale lépp bépp liggéeyu xam-xam ñetteel bi tax mu rafet rafetaay boobu itam mooy maandu maandu giñ ci tënku maandu di ñu tudde maandu ci xam-xam wax na ko ay yoon yomboon na luñ luñ fuñ fekk mbir ñu ne sëñ Muxtaar ko ci moom la jóge rek ñu daal di jël ñu daal jël am na ñu bari buñ dee bind ci seen kilifa lu rafet lu rafet lu ko xaw a jege rek dañ koy jël moomale ko ndax jàpp ne xëy na dañ koy yokk walla dañ koy dolli suñ kilifa yii nag di leen sosal dara du leen yokku dara du leen yokku dara li wér te sax loolu doy na leen sëkk moo tax li mu wax ci mujj gi ne kuy segg mën naa am la muy am mën naa bañ a bari lool waaye nag moo ëpp njariñ ndax ku indi woon loo dajee rek andi itam boo ko defee tey ñi fi nekk tey buñ ko nangoo it bis la ne ñëw ñooy ñëw duñ ko nangu kon boo ko seggut ñeneen danañ ko segg kon li gën nga seggal ko sa bopp ñoom nag noonu lañ def dañoo teg ay nattuwaay yoo xam ne nattuwaay yooyee yu xam-xam la te lu nattuwaay ya nangu rek la ñuy jël lu mu nanguwut lu mu rafet rafet lu tax ñu jël ko ndax bëgguñoo jéem a yokkal seen kilifa loo xam ne amuñ ci lu leen wóor loolu bokk nañ ci la ko rafetal li may mujj nag ci liy wane solos mooy dama jàpp ne téere bii dafa war a doon royukaay jëmmi téere bi ak niñ ko liggéeyee daa war a doon loo xam ne ni ma waxee ne ñëpp lañ soxlaa xam ñi sëñ bi ñëpp lañ soxlaa xam kon seen njaboot war nañoo taxaw taxawaay bu mel nii waaye foog naa nag ku ko bëggati du jafe ci moom ndax yoon wi ñu xàll foog naa ku ñëw rek da ca jaar day yomb ndax ni ñu ko tërale fooguma ne am na weneen yoon wu gën a rafet wuñ mën a jaar ba bind ci kilifa gu mel suñu Cheikh Mokhtar Bintaloo ak ñeneen kon foog naa ne keneen ku ñëw mën naa jariñoo ñoom lii ñu def ñoom sonn nañ ci waaye nag daañ noppal ñeneen kon li may wax rek mooy na ci ñëpp roy te jariñoo li ñu def ñoom itam liñ jariñoo mooy yoon wi ñu xàll ku ñëw rek jaar ci niñ ko tëral rek foog naa ne keneen ku doon bind ci kilifa geneen itam bu jaaree fi ñu jaar rek bu te tënku nag ci liñ tënku lépp kon bu génnee dana ame solo ni foog naa ne kon daal xam naa ne damay euh, wax li ma waxoon rek ci li ma bindoon mooy di ñaan yàlla ñu taxawee liggéey bii yàlla fay leen aw yiw ak képp ku ci jàpp képp ku ci jàpp te li nga xam ne mu ngi seen kanam ndax feeñ na ay yoon ci wax Sëriñ Abdul Ahad feeñ na ay yoon ne am na lu ne ci seen kanam ndax léeg-léeg ñu àgg ci dara duñ ci mën a dogu ñu ne nañ ko bàyyi ba beneen kon yooyu ci seen kanam it ñu ñaan yàlla jàppale leen ci moom it ba ñu sottale ko nu rafete ne lii rafete wala sax lu ko raw ñeneen ñi yàlla may leen xelum ñu mën cee roy ñeneen ñi mu yeneen kër yi yàlla na leen yàlla may xelum ñu mën a roy ci lii nga xam ne njabootu sëñ Muxtaar Bintu Lo def na ko loolu sëñ Hamid xëy na mënees na ko dugal rek muy ay kàddu waaye wax sëñ Abdou Lahad moom neexut wax leneen lu ciy dolliku maa ngi jéggulu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ñoo ngi wax assalaamu aleykum te jiital ci nuyoo bi bàyyi sëñ Fàllu mu yóbbaale mboolem ñi fi teew sama kàddu gi dana xaw a sant jaxate ñi sant jaxate jéggal ma ko ndax da ngeen a jiital naa Cheikhuna Abdou Wadoud te su waxee ba noppi dana jafeeti ci téere bi ci boppam ñu wax ci ndax ñetti ponk yi ci ëpp solo wax na ko ci tënk waaye nag jotaay bi tax mu gën a amati solo mooy damay tàmbalee fi sëñ naa tëje mooy aw yoon la wu jub woowu maanaam fi ngeen ci toll gisaguma man ci yoonu murit kenn ku bindagun ci maamam ku indi téere bu bu toll nii gisaguma ko te man jàpp naa ne liñ ci bind boog liñ ci móol 90 pour cent yi gis naa ko waaye man ci sama appréciation bopp lu toll nii moom gisaguma ko ci gisaguma ko ci yoon wi waxoon naa ko sëñ Abdou ca booba Abdou Lahad euh, Modou Lo Mokhtar dana ko waxaat fii loolu itam aw sas rëy la li tax nag jataay bii neexam mooy dama amoon benn mashruuc boo xam ne mashruuc riwaayi la maa ngi ko bëggoon a tuddee wahum humu tànnoon maam sëñ Mokhtar Binta sëñ Modou Lo Dagana moom tàmbali naa ko ak euh, maam sëñ Bay Jaxate yàlla dogal ca booba maa ngi koy wax sëñ Abdou Lahad war naa mat at ak genn wàll mu ne ma ñun ñu ngi ci bind fekk am na ay lu ma soxla woon li ko waral mooy man ki ma bokk na ci góor yàlla yi ma gën a gën a marqué ci yoonu murit muy sëñ Maxtaar Diop cump ak sëñ Abdou jaw muy fa nelaw bu yàggul sëñ Abdou Diaw dañ ko joxoon baayam bu ndaw boo xam ne kër sañ Maxtaar Binta loolu nekkoon ci njaareem nee na ma daanaka yoon yónni mbaat na su dee sëñ Maxtaar man jëlewu ma ci moom directement waaye ñoom sëñ Omar Gueye lay jëlee sëñ Omar Gueye doon jarbaat ci sëñ Maxtaar Binta muy noonu mu amee solo ma jàpp ne nag yoonu murid war nañoo bañ a rek yamati ci sëriñ bi ñooñu nag ànd ak sëriñ bi sëñ Maxtar daa wax ne sëriñ bi ñooñu mu yaral boppam ba noppi ci ñoom mel na ñoom du xalaal xaraam la loolu nag waxi murid rek la yéen xam nu ngeen koy déggee waaye nag bi ngeen ñëwee ne dangeen ngeen koo firndeel man bokk na ci li ma sëñ Abdoulaye kii dafa jëfandikoo baat léeg-léeg wax maandu léeg-léeg mu wax sago te lu jafe la xoolal kër yiy wax mbaa yiy bind yu baree bari léeg-léeg da gis loo xam ne rek da leer nañ ne yëfi maami jàmbur la yëfi maami jàmbur la barki démb rek barki démb rek ngay gis koo xam ne la muy moomale diw kaka moom a ngi dund loolu benn la bi ci des itam mooy euh, dafa bari loo xamante ni kër yi ak gëstukat yi war nañ cee jàng mooy ñu yaatal seenub gëstu te di ko won ñu bari loolu firiwul ne dañ lay gàggante waaye dañ lay dañuy wëlbati sab gis ci genn maanaam genn wàll wala genn lef boo xam ne yitte ja nga ko joxoon xaw naa manqué nga war ko yokk ñu bare bari dangay ngay digg ñu naan lépp ci kër gi lañ ko defee sàllaa moom day njabootam gi mën na lépp loolu itam erreur la boo xam ne mi ngi am ci yoonu murid wi danga koy def sax ñu koy def seeni cérémonie yu mag nga xam ne dañu ki sët ya ñoo jël lépp kii moo ko bind kii moo ko nangam di ko ndamoo fekk soo ko ubbi woon mu gën a yaatu man mën nañ la cee woon yeneen yoo xam ne yéen waa kër gi rek du ngeen ko gis loolu ñaareel la ñetteel ba itam euh, jot naa ne mashru bu gën a bu mën a am tabaa thaniya lay doon ndax li ko waral mooy da ngay xam ne gëstu bi nga ko tàmbalee waxtu wi xat na am na yoo xam ne leeragut ñu gën koo gaaw a ubbiwaat loolu moom Euh, yaakaar naa ñun ñëpp ñu ngi xaar bi ci des ñëw su ñëwee li manqué woon fii ngeen mottali ko li may lancé surtout ci bind bindkat yi surtout ñu bees ñi ñi nga mën nañoo bind téere mawdu bu mu mënti jëm ñoom rek koy xool bind ko tàppe ko génnee ko loolu moom lii rek lii rek ab bind la boo xam ne ñëpp war nañ cee bàyyi xel muy afraad yi maay individu yi ak famille yi yëpp nañuy joxe seen mbind ñu di ko xool ci ñu ñu wóolu ndax ci lañu gën a mën a yaatal ongle yi maa ngi jégluwaat baax a baax di santaat baax a baax moo ci doon barkeeloo rek asalaamaaleykum Bachirou Mbacke euh, al istiqaama euh, dafa jëloon téere bi bi mu ko liiree ba pare mu yéem ko ba tax mu def ci ay bayit yu néew ñu bëggoon rek ñu dimbale ñu balaa kilifa yee wax mu ñëw jàllale bayit yooyu xam naa du jël gën jaa bari benn minute euh, kon mën naa jage si incha allah ñeneen ñi fi jotoon a teew bokk na ci sëñ Muxtaar Mbàkke maam Ceerno Daarul Minnan Euh, man naan euh, njabootu sëñ Modou Mor Fallou sëy ñëw nañ Mouhamed Abdoulaye Sey moo leen jiite njabootu sëñ euh, Mouhamadou Lamine Diop dag ñooñu waxoon naa leen ñi ci topp mooy sëriñ Cheikh Waalo teewal nañ ko fi ay dagay député ñëw na fi waa ñoom rek ci ñeel dëkkub sëñ maxtar bind sëñ Modou Lo ak ñi mu àndal ñoom re Louga ñëw nañ sañ Njagaloo mi ngi fi Cheikh Mbuub ak sëñ Modou mu sëñ Thierno mi fi nekkal sëñ Mor Penda sëñ Fadlo sëñ Fallou Fall sëñ Bachirou Bousso njabootu sëñ Mbacke Kanni mudir Ahmad Samb ñëw na ànd ak oustaz An Diouf naa ko sëñ Maam Sayar Mbacke mi ngi fi sëñ Mourtada Diop al mudir Moustapha Diop Cheikh moom it bokk ci borom xam-xami dëkk bi al mufattish Abdou Salam Silla daairatu xisbu tarqiya bokk nañ ci ñi fi njëkk te ñi ngi couvrir euh, waxtaan wi te nañ ko jàllale incha allah sëñ Mouhamadou Lamine ak sëñ oustazuna sëñ Sidi Omar Mbacke ak euh, Aliou Guèye ak euh, Pape Hassan Diouf ñoom ñëpp ñu ngi fi Euh, teewal fi waa xisbu tarxiya mais aussi indaale seen télévision muy almouridiya rawdu rayaaxi ñëw nañ sëñ Mamour sëñ Mor Boussa moo leen fi teewal sëñ euh, Basiiru Moodu Faati Xari sëñ Cheikh Mbacke moo ko fi teewal euh, seenu njaboot ñoom sëñ Cheikh Mbacke ànd ak soxna Ami Mbacke njabootu sëñ Aliou Bousso sëñ Modou Naar bu Bousso moo fi teew Abdoul Ahad Ñang al oustaz ñëw na sëñ Fallou Bousso imaamu wal mudir al Azhar Thiès mi ngi fi Eh, sëñ Matar Lo Kokke yable na sëñ Mouhamadou Lo al imam Louga eh, wafdu eh, sëriñ Moustapha Diatara bi riasati ci njiital Bachirou Diatara suñ mbokk ak Cheikh Diatara bu ko defee am nañ fi njabootu waa kër sëñ Baara ñëw nañ fi naka noonu imam sëriñ Diop Kaolack yable na sëriñ Bachirou Modou Xabbaan moom it yable na fi bu ko defee ñu daal di jox. mbokk mi rek mu jàllale xasida gi ci lu gàtt rek benn minute ñu jéggal ñu ko bu ko defee sëñ Basiiru Mbàkke Landang wax ci turu hay abi ci lu tënku ñu doog a jox sëriñ Ahmad Fadil Lo mi njaboo mi jiite njaboot gi buñ noppee ñu jox sëriñ Cheikh Muntaxa mi fi teewal sëñ Muntaxa mu tëj jotaay bi sëñ Maamun ñaanal mbokk yëpp ñu euh, ñaanalante joxantewaat yeneen ndaje ci wàllu xam-xam incha allah taala bismillah sëriñ Bachir alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain xam naa bi duuni taaliq waaye bu nekkoon taaliq ma sañ wax ne kaddu gi amaana xasida la goo xam ne bañ liiree téere bi dañoo dolliwaate yéem sëriñ Moxtaar Bintuloo waaye dollee yéem liggéey bi xam naa benn baat rek laa ciy wax boo xam ne sëriñ Moxtaar Bintuloo ko wax ci sëriñ Masamba saayta bi ihsaanin ila kulli man tara waaye itam waa saaytum bi ihsaanin ila kulli man taraw na xas dëgg jëm ci Sëñ Moxtaar Bintuloo ak ak tim ci ci maanaam téere bi wa nasu akada ixtar li xarfiya ya miizaanu muxtaara min albuxuuri likay azuura muxtaara ixtar li xarfiya ya miizaanu muxtaara min albuxuuri likay azuura muxtaara naxtaaru zawra adibin aalimin wariin xad kaana bayna ulil aqlaami muxtaara xad kaana daftara taarixin wa macrifatin wa baaraka allahu ma abla wa maxtaara ixtaarahu allahu min ñomre li yabcasahu ila alxadimi alladi bilbirri qad xaara walcheyxu qarrabahu dëhran wa jaawarahu yaa fawsa man kaana xibban cindahu jaara raaqa almala waatala qadran wa naala ula ala kathirin min al axyaari mibraara cheikhi alxadimu alladi ma mithluhu ma mithluhu ahadun rabbaahu tarbiyatan awlathu anwaara wa nawwara allahu bilmuxtaari afidatan min azbi min azbihi ixtarafu ilman wa asraara alcheikhu sayyadahu wal ilmu zayyanahu كالدر في عنق الجمال مسوارا الشيخ قربه حقا وطيبه بالله صوبه للخير مدرارا كم سجل الشيخ للأجيال موعظة لولاه ضاعت ودرب العلم قد نارا جازاه ربي عن شيخ الخديم وعن أهل المعارف إعلانا وإسرارا جازاه ربي بما أبدته حضرته sifran nafiisan ajiban faaqa asfaara jalaa banuuhu dalaama aljahli anhu wa ma abdahu mawjun yaduumu dëhra misxaara allahu yajzi bihi xayran xalifatahu wallahu zaada lahu bi cheikhi acmaara bi sayidi alxaadimi almuxtaari thumma lahu minni salaamaani maa abdaytu ashcaara aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almuxtaari sayid amin sayidina wa moolana muhammadin wa ala wa sahabatihi wa xadimihi ajmain mbokk yi ñu ngi yëkkati suñ kàddu ci turu alhaya bi nga xam ne mooy hayatu turaasu ihyaau turaas Seex Maxtaar Binta Lo kàddu googu it bokk yi kàddu yi cant lay doon rekk ci lu gàtt gàtt ngir li ci waxtu yu maye ñu tënku ci bokk yi ñi nekkoon ci xëy bi di liggéey noo ngi yëkkati seenu cant di ko ci joyal ci a Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo toogee ci ay Sëriñ Tuubaa te ñaanal ko mu yàgg ci lool te ànd ak ay ndam nag ngir taxawaay bi ak yëg gi ak yitte ji mu def ci liggéey bi ba mu tàmbulee ba tey état buñ toll rek mu wane ne liggéey bi ab liggéeyama ngir Cheikh Mouhamadou Bachir digganteem ak Serigne maxtar waaye ngir nag kilifteef gi ko yàlla jox ci mboolem yoonu murit te kër Serigne Makhtar bi te bokk ci yoonu murit bi ci mujj rekk mooy biñ noppee ci téere bi jot nañ ay yóbbanteem yu bari bi mu yégee ne ñu ngi koy móol di mettit lu ci xolam ne xamul woon ne dañ cee jublu ak mool waaye bu ko xamoon loolu moom la war ba mujj mu dugal ko ci nopp sëriñ Fallou mi nga xam ne moo jiite kër gi mu xamal ko ne ko sang njaboot ñoo la ci wutu te muy noona it nag kon mbooloo maa ngi koy sant bu baax Mbàkke di ko ñaanal di sant it nag mboolem njaboot sëriñ Touba gi nga xam ne bii téere bi commencé ba tey yëg nañ seenu tafaaxul ak mbooloo mi ci état buñ toll kuñ ci soxla ci ñoom jàpp ga ñuy am ak li seen waxtu di xat-xat bu sëñ Mouhamadul Mamoun teewee nii di deemu Cheikh Mouhamadou Fadl sëriñ Mahmoudan teew doomi Cheikh Mouhamadou Mourtada ndawul sëriñ Mountakha teew di sëriñ Cheikh doomam yaakaar naa cant googu ak ngërëm li ak ñaan gi mën nañ koo jaarale ci ñoom mu jàll ca fu mu mën a jàll ci fi ci mboolam njaboot Sëriñ Tuubaa gi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm xëy abi di jagleel ak cant ak ngërëm nag jëwul ni kër sëñ Maxtaar Binta muy sëriñ fàllu mi nga xam ne lii ci loxoom la ko yàlla dogalee cant googu nag dañ koy jiital ci bokkam yu baax yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu ñëpp tàmbale ak sëñ Modou Lo Maxtaar ba ci sëriñ Seexuna radiyallahu anhu ajmain ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te garde ndonal kër gi bañ fekk ko fi ba lañ bëggoon ñoom ñëpp sottee ci loxoom ñi ngi leen di ñaanal yërmande yàlla ak njëggalam di ñaanal seenu njaboot ñu wut leen ci sago waaye di ñaanal sëriñ Fàllu bu baax a baax mbooloo mi ñu koy sant ci jàpp ndal gi nga xam ne yëg nañ ko bu baax a baax a baax ci liggéey bi gunge gi mu leen ci gunge ci jamono ñu ci toll ëpp leen xalaat fuuf ëpp leen xam-xam fuuf waaye yàlla dogal nag mu bàyyee leen boppam ba lu ñu ne ko lii lañ bëgg rek mu fekk leen ci ba dañuy mujj sax léeg-léeg mu bëgg mbir dañuy rus dañ naan lii de moom nañ ko bàyyi rek ni ko sëñ Fallou bëggee ndax li ñuy fekk si bari na lool. te loolu yaakaar naa yombut ci kilifa kon ñi ngi koy sant di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla dëgëral ko te may ko ay ndam ci liggéeyub sëriñ Touba bi ci biir tool bi sëriñ Makhtar Binta ak mbooleem ñu mu di ko seereel nag moom sëriñ Fallou ak cantu mbooloo mi ci sëriñ Cheikh Makhtar loo moom sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne moom la boole woon ak ñoom moom it ndal na lool liggéey bi xëccoowut ak ñoom dara day mujj sax bu ngeen toogee ci jotaay da ngay mujj da ngay dérangé wu ndax da nga moom foo xam ne jàpp ne waru faa àgg waaye nag buñ ci jógee rek mu daal di fàtte loolu daal di song lu bees kon sëriñ Fallou ñu ngi lay seereel ne ki ñu booleeloon ci liggéey bi wax dëgg yàlla mat na ndaw ñu ngi koy ñaanal ñun ñëpp di ko sant di ko jéggalu mbooleem rëcc rëcc yi jógee ci mbooloo mi jëm ci moom lii fii ak dinaa li njëkkoon ci liggéey bi cant googu yi dañ koy jooyal ci mboolem kilifay kër gi jëwri ni ko sëriñ Maxtaar Binta di sëriñ Xalifa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kër yëpp di am cant nag goo xam ne ak ñaan goo xam ne dañ koy joyal ci mbooloo moo xam ne dañoo àndoon ak ñoom liggéey bi te yàlla suñ boroom mi nga xam ne mooy dogal dogal seenub ajal fekkewut jeexub liggéey bi ñu leen di ñaanal di leen fàttaliku bu baax a baax ci tënk rek soxna Maguette Lo moom sëriñ Makhtar Binta Lo bëri na loo xam ne ci moom lañ ko doon jëlee ji soxna Faati Baraan Lo moom Serigne maam maam Balla Joor ak Serigne Mouhamad Serigne Abdou Mannaan Sëy di njabootu sëriñ Mor Abdou Sey moom it bëri na lu ñu jëlee ci moom waaye nag mbokkum taalibe moo xam ne ci liggéey bi la bokkoon muy sëriñ Malick Mbuub dëkk ci ñoom rek ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla teeru leen ak yërmandeem te jéggal leen te liñ fi bàyyi barkeel bokk yi ñi nga xam ne ñoo doon liggéey téere bi nag nee nañ ci tënk ñi ngi sant mboolem koo xam ne jàpp laale nga ci téere bi ci ak jege wala ci ak sori cant googu ñi ngi ciy beral kilifa yi comme ni leen sëñ Fall di tuddee samay kilifa muy njaboot gi nga xam ne ñoo ko yilif te nekk fi mu nekkal leen ci kër sëriñ Maxtaar Binta muy sëriñ Thierno Lo ca ñoom rek sëriñ Cheikh Mbacke Lo sëriñ Cheikh Jaaja ak mboolem kër sëriñ Maxtaar Binta yi ndax kër sëriñ Maxtaar Binta bokk yi bu buñ ko waxee dañ koy dégg ci dégginu sëriñ Maxtaar Binta rek ñun daal di noppalu mooy wa kullu man li yantami fi sulbi aw fi rahimi aslih yaadal karami wa hammahu laka dubi wa man taallaqa bi yaa min kulli ma axin liyaa fi llaahi yarju nasriya lillaahi ta taraqubi waliyahab durriyatan tayibatan saalihatan tayibatan wali wali uyuni xuratan sawi safaayi masrabi sëñ Maxtaar Binta noonu la déggee woon moom këram mooy ku ko yàlla booleel ci bokku deret ak bokku pas-pas ba nga xam ne gis nga ne sax mbokk pas bokk deret pas-pas yi lay jiital ci bokk deret yi kon ñi ngi leen di sant ñoom ñëpp bu ci jo ko jor gi woon dañ leen tudd ci ay tur xëya bi it mi ngi sant mboolem koo xamee joxoon nañ la téere bi la ci liggéeyloo li sa jam jot di xat-xat nga def ci la nga man lépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bi ak appréciation yi ak li nga xam ne moo jóge ñoom di ci beral cant nag njaboot sëriñ comme ni ko waxee woon sëriñ Maam Mor Mbàkke moom sëriñ Murtada sëriñ Mouhamadou Abdoulah sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Abdou Lahad ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal bu loolu jàllee xëy abi bokk yi ñi ngi woo usra Cheikh Mata Bintaloo ci koo xam ne yaa kàggu nga fëgg ko ngir yàlla ndax buñ mënee liggéey lii ba mu am njariñ tey daa am ñenn ci ñoom dama ciy taxaw ñenn ci ñoom ñoo fëgg lenn ci seenu kaggu dañoo bëgg nag ñi fëggagutoon ñi bokk ci ñenn ñooñu dimbale ñu fëgg liñ yor ñu jariñoo ko te yàlla tax ñi jotoon a fëgg te fëggoon lenn li yor la ci des ñu fëggal ñu ko ngir ñu jariñoo ko te yàlla tax loolu moom ak ñaan la guñ leen di ñaan ñoom ñëpp ñi fëggutoon nañ fëgg ñi fëggoon nañ fëggaat ba xam lañ dese buñ ko génnee des na ko mën a génnee ci yeneen yu ñu mën a jariñoo bu fi jot gi maye woon dañ ko leen tudd waaye dañ ngi woo mboolem jàngkat yi ak gëstukat yi ne leen ab yaxa ngoog la sëñ Fallu waxoon seen yoxu jumaa ngoog waaye seen yoxub téere ngoog seen yoxub téere ngoog yër leen ko bu ngeen noppee lu ngeen ci gis lu aaje dolli mbooloo mi loola dañ koy bëggee lu ngeen ci ko as lu aaje mbooloo bi dañ koy bëggee lu ngeen ci gis lu aaj jubbanti mbooloo mi dañ koy bëggee ñu ngi woo jàngkat yi toll ci jàng wa rawatina gone kër gi ñu xam ne seen liggéeyu maama ngoog seen bantu maama ngoog bu leen neexee mu doonu nekk bu leen neex mu doonu kër lu mu leen neex mu doon ko bunt bu ne ci téere bi man na risaal doctorat te ku wacc soxla xëy bi daañu ci jàppalanteeg yow seen kemt lay kattan kon loolu ab wat la boo xam ne moom la ñuy jëmale ci mbooleem mbokk yi waaye nag xëy bi am na ay projet ay bëgg-bëgg yoo xam ne fas na ko yéene jëmmal bu ci amee ndigal jëm projet bokk na ci benn boo xam ne moom am nañ ci ndigal ba ñu ngi ci mooy jukk ci yenn ci xasire yi nga xam suñu maxtaar da ko bindoon te muy xasire tawasul mu bind ko ci alxatul maghribi bi nga xam ne moom lañ xam ci suñ son bi ngir bokki taalibe yi nga xam ne liir mbindum arab mii mën naa jafe ci ñoom ñu mën koo jariñoo bokk na ci xasida yooyee bu ñuy wax tasilu matalib ak ila kaabatil amal ñi ngi ci yaakaar naa bala ñoo balaa yàgg loo danañ ci jot fexe ba bokki taalibe yëpp jot ci ku ko soxla man cee am lu mbarkeeloo bi ci des mooy bëgg nañoo traduire téere bi ci langue yi ñuy jëfandikoo ci réew mi bi ci njëkk langue wolof fi nga xam ne mooy suñu langue réew fas nañ ko yéene traduire fas nañ ko yéene traduire ci français ak yeneen lu ñu jot gi may ci yeneen làng bi ci des mooy xaye bi mi ngi wax ñëpp ne leen ñu ngi continuer gëstu bi te fas nañ yéene leneen lu bees rek ñu daafa ko ci lu bees lu fi ñëwati kon loolu bokk yi mooy kàddu yi ñu ngi eh, yëkkatiwaat kàddu cant kàddu yu ngërëm kàddu yu ñaan di ko jëmale mboolem ñi ñu àndaloon liggéey bi ba mu sotti ba àgg fii mu àgg ñu ngi leen di jaajëfal leen ñaanal di ndokkeelaat sëñ Fallu di ko ñaanal yàlla defal ko ndam ci yanu ko sëñ Maxtaar Binta ak mboolem jëwriñ mi àndal ci liggéey bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ ko fi moom di liggéey sëñ Touba nangu liggéeyam boobu kër sëñ Touba di sant it nag njobootu sëriñ Touba gi nga xam ne ñoo fi teew te ñu ràññee ci sëriñ Mouhamadou Mamoun moom sëñ Falilou ràññee ci sëñ Mahmoudan moom sëñ Morsala ak seeni rakk yi nga xam ne xaj na teew nañ fi te seetlu ma leen ak seeni doom yi fi teew ak ñu fi teew ñëpp ñu ngi leen jox cant ndax yittewoo gu ñu yëkkee yittewoo suñu jataay bii di sant nag boroom xam-xam yi nga xam ne ak baax si yi nga xam ne ñoom ñoo yittewoo liggéey bi ba nga xam ne xëy abi bañ ko tàmbalee di liggéey luñ leen ci sant def nañ ko defe naa liir nañ fi bind nañ fi jàng nañ fi liste bu gudd boo xam ne bi eh, jabatuk sëñ Tuubaa bi foofu borom xam-xam nekk eh, yët nañ ko téere bi mu jàng ko ñeen ñi def nañ ci ay taqaaris yu am solo loolu kon loolu ñoo ñu amee nañ leen cant gu mag a mag cant googu dong nag mooy li nga xam ne moom moo yëkkati woon. xaj na danaa am nag baat boo xam ne maa ngi ko jëmale ci sama njabootu bopp gi njaboot gi nga xam ne ñoom laa sarse woon liggéey bi ñu jóg euh, ak seen yitte ak seen yéene euh, ba taxawal ba amal liggéey bi ñu teg ko ci suñu loxo muy loo xam ne lii lu lu am solo luñ mën a wane. foofu nag seenu cant maa ngi teewlu seen waajur yi nga xam ne ñoo fi làqu bàyyi naa ñoom te kenn ku ci ne leer na ma ne yóbbaale na ci xolam yéene woon lu mel ni lii yàlla far ko dogal ci seen gannaaw waaye dogal ko ci seen gannaaw génnewu ci seen loxo ndax seen njaboot rek ko defar te njaboot goog yi dañ leen sànniwut ci mbooy ga dañ leen a jur fañ leen war a jure jàngal leen yar leen teg leen ci aw yoon ba tax ba ñu làqoo itam day naam nekkuñu fi waaye lañu waroon a def lépp bàyyi nañ fi ñu ko man ñu ci ñu ñu ko nangu itam nag waaw man nañ ko nangu nañ ko maa ngi leen sant di leen ñaanal ba ñaan lépp loo xam ne seen waajur yi namoon nañ ko bëggoon nañ ko ñu man ko ànd nu ànd koog man ñu ñu liggéey leen ko ci barkeb sëriñ tubaa dara jëye sëñ Mokhtar bi nga xam ne moo ñu ci boole. waaw kon cant googu Cheikh Makhtar yaag rakk yi nga xam ne yéen doon liggéey liggéey bi yéen yéen a ko moom nangeen xam ne nag bi ma leen fàttalee seen waajur yooyu fàttali leen seen maam maa ngi ci occasion waale di jëmale message ndax sëñ Makhtar Binta dowul moom dong nekkoon fa sëriñ tubaa fekk na fa ay kàngam yu mag a mag a ay kàngam yu mag a mag fekk nañ ko fa itam te lii eh, dëgg la eh, ñi ko doon liggéey ñaar liggéey nañ ko ci ñaari at ma jàpp ne nag kàngam yooyu woon fa sëriñ Touba ña fa sëriñ Maxtaar fekk ak ñam fa fekk ña fa fekk ñépp ku ci ne tey jii mënoon nañoo liggéey lu tuuti lu gën a tuuti sax liñ liggéey ci liggéeyu sëñ Matar bi ba génnee fa lu mel ne lii kon maa ngi woo kër yu mag yépp ku ci ne la nga xam ne lii moom la seen waajur ya dencoon ak seen maam ya ñu góor góorgóorlu ngir yàlla ba génnal nu ci lu ñu mën a jariñoo kooku message boobu maa ngi ko jëmee ci kër sëñ Tuubaa gépp jobatu sëñ Tuubaa gépp jëmee ko ci taalibe yu mag yi yëpp ci kër yëpp laa ko jëmee foofu li ma ci gën a yittewoo moo di mag ña bu ñu fi nekkoon ba léegi su fekkoon ne nit day dund ñaar téeméeri at ak ñetti téeméeri at leer na ma ne mag ñu jamonte woon ak Serigne Touba su ñu fi nekkoon ba léegi suñu àddina si ni mu ni mu lëjee du du ko lëje ni mu naqaree du ko naqaree ndax xéewal yi ñoom du leen woon te def la war a def xéewal yi du leen soxlaal du xéewal yi du leen yitteel sax far maanaam du leen tee nelaw du leen tee def lañu war a def loolu nag liggéeyu tubaab la tubaab yi ñoo ñëw Sénégal indi ñu fi am njàng jël ci njàng ma dugal ci ab culture ab saqaafa maa ngi leen di delloo ci benn conférence boo xam ne suñ isaa xamas na ko def boo xam ne da cee wax diggante taalim ak ak ak bi diggante njàng ak culture mën nga jàng français ba na xar ba noppi yor sa culture islamique yor sa culture bi nga xamee moom nga doon Sénégal kon ñi nga xam ne ñii ñoo fi newaloon àndoon Sëriñ Tuubaa suñ fa newoon ba léegi seen culture boobee ñu yoroon moom la ñu doon yore Sénégal ba léegi te jàpp naa ne ñu bari ci ñoom daañu jàng tubaab daañu jàng anglais jàng arab ba di ko bind ba mën a déggoog arab yi sax ndax seen njàngoom arab moomee la mu doon foor foor sóoraale wuñu woon sax di am ay alaaxaat ak alamu arab yi bind ak yow seen doon néew ci woon dañoo jàngoon jàng lislaam ba xam ko jàng arab ba dégg ko ñenn ñi di way ñenn ñi di bind ñi ñoo gënoon dégg arab arab yi waaye taxul woon ñu tiitaroon ne damaa dégg arab ñoom ay wolof lañu woon dégg nga kon nun ñii fi des ba léegi message euh, conférence boobu sëñ ma sa def maa ngi leen ci delloo ñun ñëpp dañ ko xooliwaat xam ne mën na noo jot suñu culture ba noppi jàng laa ngi ci àdduna yëpp yor ci suñu réew bi misaal bi ñu joxe rek mooy suñu mbokki asiatique yi Asie benn réew bu mbokk Asie boo xam ne bokkoon na ci colonisateurs yi amut colonisateurs yi ay européens la ñu kon asiatique yi mosuñu dominer kenn au contraire dañ leen a woon ñoom yilif leen waaye tey jii am na ci ñoo xam ne ci seen culture bopp jàng nañ làng yépp jël seen culture bopp fexe ba développé ba génn ci loxoy colonisateur yi Philippines dégg nga Malaisie dégg nga Indonésie c'est yooyu ay réewi jullit dañ ak nag réew ya nga xam ne du ñu réewi ay jullit ay Inde ak Pakistan Pakistan sax réewum jullit la dégg nga Iran di misaal Iran nag nekk misaal mu gën a fort ci misaal yi ñoo ñëpp dañoo amoon dañ leen a ilifoon coloniser leen ñu fexe ba dellusi jot seen bopp waaye ñu indaale seen culture ba noppi téyewaale langue ba nga xam ne boobu moom lañ leen dominé woon ña ngi ko doon jàng xam ko man ko ba noppi téye seen culture lii leen di pour mu gën a leer na ngeen fexe ba amaat conférence sëñ Isaaxa boobu mu ngi ci média yi loolu nag dañ ci jublu fas yéene sobe suñ Sénégal gi sobe suñu Sénégal gi téye suñu réew mi ba noppi téye suñu diine te du du tee nu am relation ak ñeneen ñi waaw kon loolu baat yu gàtt la yoo xam ne yi dama ne woon naa ko fi dugal message bi jëm ci euh, gaa yu baax yi nga xam ne ñoo nu fi teewal mooy ak cant ak jën ci sama doom yi nga xam ne ñoo doon liggéey liggéey bi ak li nga xam ne moom laa jëmee ci suñu mbokk kër sëñ Touba yi nga xam ne cheikh si fi nekk ak seen doomu seex yi ak seen sët yal na yàlla boole ci ñi nga xam ne ñooy ñooy sowe Sénégal ëllëg xam naa sax sëñ Touba moom mooy sowe Sénégal waaye nun ñi yàlla yàlla def ñu éléments yi nga xam ne ñoom la sëñ Touba sowe Sénégal ëllëg te mën nañ ko de ndax mi ngi ci suñuy loxo gone yi jàng nañ te dellu si nañ ba xam ne xam-xam ak du mën a nekkub taalibe bu wér te boo nga nekk taalibe sax da nga am xam-xam dëgg dëgg dëgg boo ko ngay xam sëñ tubaa kon léegi maa ngi leen di woo ci loolu di ñaan sant ñëpp di ñaan nag ëllëg ak yàlla nanu yàlla may nu dund ba tooywaat fii di di di di sañewaat beneen euh, téere boo xam ne bu mel nii lay doon ci njabootu Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa mbokki jullit yi mbokki taalibe maa ngi leen di jot seex cant nuyoo bu seex Mouhamadou takka bi ko teg ci loxol sëriñ Fallou Lo waaye maa ngi koy defee ci ndigalul sama kilifa yu baax ñoo fekk te ñu ràññee ci sëñ euh, sëñ Mahmoud sëñ Mamoun sëñ Fallou ràññee ci sëñ Khalil génn yu lu baree baree bari Cheikh Mamadou Muntaxa ni ñu ko waxee léegi ah mi ngi doon jokkoo yéen ci liggéey bi xam na ne lii ab liggéeyam la ndax liggéeyam Serigne Touba la te liggéey bi rëy na lool te Serigne Mokhtar Binta mi ngi ko mi ngi koy liggéeyal doonoon kenn ci Serigne Touba doonoon kenn ci njabootu Serigne Touba doonoon ku. tax ràññi ko woon ab taxawaayam boo xam ne xam nañ ne Serigne Touba ba mu ko gisee ba mu ñëwee ji Touba jox ko boppam ba mu ko gisee am na lu mu ko bëggoon a liggéeyloo moo tax mu jaarle ko fa mu ko jaarle ba mujj nekk ki mu nekk doon kenn ci ñi nga xam ne euh, dañ koo liggéey liggéey bu rëy waaye ñu liggéey ko liggéey bu rëy ci xam-xam ku ne gis na. net lii nga xam ne Serigne Touba daana ko wax daana ko wax njàngale ay njàngale lañ tudde sax njàngale yi nga xam ne Serigne Touba daana ko def ak mbooloo mi te xam nañ ne lu bari ci wolof la ko daan def waaye gis nañ ne sëriñ Mokhtar da ko doon def ci arab la waaye boo koy jàng dangay jàpp ne Serigne tubaa moo ko waxee ni ci arab kon loolu lu la kon daal ah dañ leen dañ Cheikh Mamadou Mountakha nee na def leen di sant rek xam ne lii ngeen liggéeyal moom ngeen ko liggéeyal ndax day koo xam ne warees na koo xam warees na koo roy ndax boo boo ko xamul doo ko mën a roy loolu moo tax lii ngeen def am njariñ ndax day tax ñu man koo xam man mag ñi day ñu man mën leen a xam ba mën leen a roy te bu ñu leen royee dañuy taxe ci àdduna texe ci àllaaxira am ñu defaru am jikko yu rafet ah, ah man nag dama fee teewul waaye loolu moom da loolu fàtte naa ko ndax ñu ndax ndax dama fay ñëwoon ngir dama dama bëggoon a ñëw ngir académie nan ginnaaw bi sëñ Isaaxa woo ma yónni ma ndax digganteem ma kër gi digganteem ak sëñ Fallou Lo waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha mujj woo ma bu naa ànd ak sëñ Mountakha Mamour mi ànd ak euh, sëñ Baara moom sëñ Sousa Bachir ànd ak Mokhtar Seck ak euh, ak mboolemaak ñu bari na ñëw teewal ko ci bis bi ndax lii da ko fonk lool lii dafa rëy ci moom lool kon nag xëy eh, jaare ci sëriñ Fallou ñëw ci xëyee bi nga xam ne ñoo doon liggéey liggéey bu rëy bii Cheikh Amadou Mountakha mi ngi leen di sant sant bu rëy rëy boo xam ne amul àpp waaye nag mi ngi leen di soññ di jaar ci yéen di soññ ñëpp ngir ñoo gën a bàyyi xel lii seen kër maam ku ci ne nga fexe ba toppatoo ko ba xam nam doon dunde xam nam doon dunde ak Sëriñ Touba ba mën cee bind lu leer loo xam dañ ko fi bàyyil danañ ko mën a dañ ci mën a jariñ ñun ñu fi teew waaye dañ ko mën a bàyyil ajiyaal yi ñëw bañ mën cee jariñu ndax lool ndax amul lenn lu ko gën a am solo kon nag jërë leen jërë leen jëf te xamul moo mi ngeen wax jërë leen jëf rek jazaakumu laahu xayran jazaa ayyadakumu laahu wa nasarakum Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer